creative arts drama debate ba pare démba démba la li nga amoon director of film benn film insu ah, company ku ñëw fii di leen jéemantal naka la ñoo defee filmin ak lu tax filmin am njëriñ ak yooyu di nga gis ne basically fii learning area la ba pare ñu ngi bugg a change seen attitude lu ko xale soo leen laajee kañ leen dee jóg half past five la ñoo jóg sangu dinañ meeg di ne dinañ jóg dinañ sangu ba pare dinañ julli du ko ñu ngi am jaaka boo xam ne mu ngi fii ñuy war a dem cooj da leen dee yóbbu ak moto cooj ba pare ñu isi leen so loolu yëpp dafa nekk loo xam ne di nga bugg a jiimantaal xale yi pour ñu yaru so di nga ne fii amu fi xeex amu amu tu cigarette mobile yi sax dañ ko bàyyi seen kër yi su seen parents yi su buggee kool dañoo kool am na nomba suñu leen jox nomba suñu la ñoo kool so fii pour réforme xale bi la. bon ñu ngi la fekk fii ngay perform ak xale yi mun nga ñëw euh, séddoo ñoon ban kontaane nga am si euh, performal gars yi waa campi xale yi am not solo because xale yi war nañoo jànga ba egga am holidays dem toog benn place nekka together pare li ma si gën a neex sax ñu different family di làkka different làkka pare di làkka naaka bokka benn ndey benn baay because ma la gis dama kontaan maa ngi gis ñoom ñu ngi foo na xamante wuñ sax xamante wuñ bu baax waaye na xale yi xamante so kam dafa important pour xale holidays su fekkee yaa uh, yaa ngi jàng jàng be xam nga sa bopp bi fi mu nekk foog nga dem nga relax ko tuuti tam Gambian music xale yaa ngi ko apprécier Gambian artiste ñu ngi ko apprécier parce que DJ fi nekk mu ngi play Gambian music ba fi toogee ba tey Gambian music laa dégg muy play so loolu dafa important pour fi bi ndax music benn xariwut music boo ko déglu rek lu lu sa noppa bi yaa ngaa dégg rek moom ngaa bëgg kon kenn Gambian music benn benn benn xariwut dañ ko déglu mbokk yi bu loolu weesoo rek ñu dal di jàll si fànn bi nga xam ne moom ngeen dee joytoo seen tawati xol yi muy suma xol ñu ànd nag ak suñu Ramatulaay Jaalo si leetar bi mu ñu amal tey. suma xool nag tey leetar boo xam ne bu daw yaram boo xam ne fa jógee ko si benn ndaw bu jigéen boo xam ne ah, mu ngi si ñaar fukki at ak benn am mu ne mu gisante benn waay boo xam ne bugga na ko lool moom mu bugg waay lool ñu waxante yi fi sëy waaye moom waajuram yi moom xale bu jigéen mosuñoo bugg a sëy bi waajuri xale bu góor bi tam ndeke bu li mu woon sëy bi waaye moom xamu ci woon dara ah, parce que xale bu góor bi mosu ko koo wax ne ko man suma waajuri bu mën a fogoon ne moom waajuram rek ñoo buur sëy bi mu ne léegi nag gars yi forcé nañ takka sëy bi biñ takkee léegi yàlla may na leen fa benn doom boo xam ne mu si mu ngi toll si ñaari weer fu mu nekk ni mu ne waaye ah, problème am na seen diggante parce que moom wa booy bi fu mu nekk nii moom moo ko jox fitna sax si biir néeg bi mu ngi am daanaka ñetti fitna la am fitna booy bi si néeg bi fitna waajuri booy bi fitna moom waajuram mu ne moom rus naa dellu si yaayam di ko wax ne ah, maa ngi am problème suma diggante suma jëkkër parce que li mu dee def mooy ne waa ji dafa weer bi dafa jël lii di junne tegal ko ne ko li mooy sa dund yow yaa doom bi xam nga sa dem jàngi ak yëpp daal moom si junne juróomi téeméer boobu la ko emale mu ne te loolu noonu fayu dara su doom bi feebaree sax si junne juróomi téeméer boobu la ko war a jëlee mu ne fu mu nekk xolam métti na te mënut a demaat si yaayam ne ko ah man de lii laa jànkuwanteel su ma sëy parce que yaay bi ak ñeneen ñi si mbokkam mi waxoon nañ ko ne bu mu dugga si sëy bi dugga na si sëy bi fu mu nekk ni waaru na xamul la moo def mu ne bugga naa tas sëy bi waaye balaa moo def loolu mu ne mu déglu la la ko nii xam ngeen ne saa yu ñu leen jàngalee leetar dañ dee génn si waxtaan ak askan gi su ko defee ñu digal borom leetar bi moral nag suñ doxantu bii nii. bu fekkee ne man la bu fekkee ne ne jëkkër ji bëggatul ko dafay tas sëy bi parce que yàlla daganal na ko yàlla daganal na sëy bi tas yàlla daganal na sëy daganal na sëy bu tas bu fekkee ne man la bu fekkee ne ne jëkkër ji bëggatul ko dafay tas sëy bi rek mu ut caasam mu toog mu ut mu ut beneen caas. waaw xale bu jigéen bi li ma ko mën a digtal mooy doomu aadama yàlla dafa wax ne sooy uti jabar seetal si jiw bu baax pour nga mun a am doom yu baax jigéen bi itam sooy uti jabar su nekkee da nga bëgg a jëkkër seetal balaa ngaa dugg si sëy bi seetal koo xam ne ku baax la ku am yërmande la ku mun a toppatoo waajur la ku baax nag yàllaa ko xam mun ngaa dugg bi ci biir nit ki ceeñ mun na la waan jikko bu rafet bi moo ut mu dem bi ci digga bi mu ñëw am problème waaye nag sëy bi comme que yàlla def na a takkoon sëy bi bu mu tas na delluwaat si ñooñu mu wax leen ne man kat lii mooy suma comme que mënut a dellu si waajuram waaye li gënoon daal mu dellu si waajuram toog ak ñoom waxtaan ak ñoom ne leen man de dama mistake yàlla ki ñu jur yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ dañoo tooñ ñu jébalu mu jégal ñu kon nag naa ne képp kuy jullit bu nit bu sa doom defee erreur su wëñeekoo ñëw jébalu la war nga koo baala teg ko si yooni siraatal mustaqima wan ko yoon bi mu war a jaar xale bi moo mistake gisutoon bugg a buggam rek la gisoon xale bu góor bi tam bugg a buggam rek la gisoon waxuta waxtal waajuram ànduñ ci kene tan waajuram ànduñ ci waye sëy daal bala mo dem ci yoon yoon digg naa ko rek nas yaay jeeg papa bi anda, kene tan papa yaay am anda, elek su dara xapu dinañ mëna tok ñom neen ñu mëna tok arrange affaire mu ni wara war ma gis-gis bi dee na mu jekkali collège am bi yàlla baax na yàlla mun na parce que su demee bi nga xamé téexa téexa mu ngi am te mu ngi bugg a gannaaw tamit njaboot bi mom yalla ko amé na muñ rek bés xolam yàlla na ko jàppale si lu nekk xolo jëm bi bi mu nekkee nii na ko si jàpp ñaari loxo yàlla na ko saafara lu nekk yàlla na ko ubbi xëy na tamit fu mu bugg a laal tamit la ko yàlla gën a yokkaloo jëkkër ji dina ko toppasi bu si xaadi bu si def dara yaa ngi gis fu dul fiire muy feeneen na muñ rek mu jàpp yàlla mu bés xolam bi man de su fekkee ne man la si loolu laay def. Ah, man lu may digal suma moromi jigéen bi na muñ rek mu jàpp si yàlla comme que si sëy la nekk am na fa doom nañ muñ rek lu mu yaaga yaga dina jeex man loolu laa am pour wax si ndaw si nii di sëy léegi xale bu góor bi la ko digal xale bu góor moom tamit fu mu nekk moom na delloo si waat xelam bi mu xam ne jigéen jabar la am te am na doom na delloo si waat xelam bi comme que jigéen bi moom moom la nopp jësut kenn ku dut moom na nañ muñ rek ñu jàpp si yàlla xale bu jigéen bi daal fekkoon na man a li ma koy digal mooy daal mu muñ daal ndax xam nga sëy neexut sëy noo mënta gis rek muñ la waaw mu def ngir yàlla rek te muñ man kañ maa ngi ñaan xale bu jigéen bi na téye si sëy bi comme yàlla dina ko si dimbale xëy na moom dafa bëgg a tamit na ko si na si na si na téye si sëy bi daal yàlla dina ko si dimbale waaw mu muñ waaw léegi booy bi nag loo ko digal jëkkëram bi moom maa ngi ko digal ne moom papaam ak yaayam dañ ko aaye woon si sëy bi te moom mu dugal si kañ mu fas jom rek mu téye si comme ji mu xam ne jigéen bi daf ko bëgg mu góor góorgóorlu mu continuer si lifin bi mu mu bëgg a jigéen bi daal mu won ko yoon xam nga yaa ngi tey lii lañu waxtu may si seen programme jamono ji waaye naka di leen wax ni seen leetari xool yi mun ngeen ñu ko yónnee si ñi nga xam ne email moo leen gënal si jamono ji at yahoo dot com jamono ji at yahoo dot com ñi nga xam ne ba tey rek téléphone moo leen gën a yomba call leen ñu seet 36 555 32 36 555 32 seen xarit Mama Jee di leen dig daje ba beneen bés bu ay si waxtu bi jërë ngeen jëf